solos ndaje bi di si li koy wund woon mooy que ne dañoo jàppoon ne ñun en tant que association bi nga xam ne bii moo rëmb ñi nga xam ne ñi ñoo yëngu ci wàllu caméra yi ñu ne woon tey euh, dina jaadu ñu jéem a def benn journée domage pour sargal sunu mag ñi wala sunu rakk yi wala sunu kilifa yi nga xam ne yi ñoom nag ñoom ñu nag ñoom ñoo nekkoon ci wàllu presse yàlla dogal ñoom ñu jiitu et li tax ñu dogal ñu defee ko noonu mooy que ne nit ku nekk ci dund da nga war a am tamit benn référence ñun ñëpp xam nañ que ne tey milieu presse bi dérive yi dafa bari tentation yi dafa bari moo taxaw ñu ne tey il faut ñu jéem a wut ña nga xam ne ñii ñoom donte ne ñi ngi dund mais am na ñoo xam ne ñii génn nañ àdduna ñu jéem a fexe ba jël si ñooñu ay quelques personnes jéem leen rendre rendre hommage parce que on a essayé de mêler l'utile à l'agréable c'est-à-dire sargal ñi nga xam ne ñii ñoom jiitu nañ mais aussi am na ñoo xam ne ñi ñi ngi fii de leur vivant aussi tamit ñu sargal leen moo tax ku si mel ne ay ñoom soxna Dieng Mbacké ñu jox leen ay raaya Seydina Omar Gueye c'est un de la RTS euh, Youssou Sagna ñooñu ñëpp il fallait que woon ñu rendre leen hommage parce que tey si presse bi ñëpp nangu nañ que ne ñooñu tey Euh, vraiment amuñ dara loo xam ne lii moom lañ leen di mën a reprocher si wàllu euh, liggéey. tey jii dañ ma fi invité woon association des caméramans du Sénégal ñoo ma fi invité bi ñu ma invité c' était pour mu ñëw bokk ci omage bi nga xam ne dañ koy rendre maanaam sargal ak euh, mbàkk ay yëkkati raaya ay nit ñu mel ni Sidi Lamine Niass Babacar Touré ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñu fa waroon teew tey am na ñu teew am na ñu teewul man nag amoon naa. mbégte ak xol bu tooy bi ma fi nekkee gis ñuy wax ci nit ñu baax ni nga xam ne dem nañ te nekkoon ci métier bi su mel ni Babacar Touré si Lamine ak ñeneen ak ñu gën a ndaw sax mel ni ndate ndate bi nekkoon RFM TFM man euh, dama interrogé fukki fan laa ci teg xëy rek gis ne dafa wàññeeku euh, li fi xew tey njàngale la njàngale mooy am na ñu fi nekkoon di def métier bi nit ñi ràññee nañ leen ci yoon manoon nañ ko lool amoon di fayda ak fulla mooy la ma dem si ko si Touré boo waxee ba ma nekk journal nee na ma journalisme boo koy def da ngay man man mooy xam li ngay def moo ko waaye xam boobu nga koy am nga koy xam mënoo ko teqali ak dignité bi nga jox sa bopp ak mat gi nga mag sa bopp mat gi nga jox sa bopp ak mandute gi nga nekk ci yow boo leen tàqalee rek talent amatu loolu nag il faut journaliste